réew mi ni muy doxee Badara ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di ziar Mohamed je suis ngi si jàmm. alors ñu ngi ci jàmm à part après dinaa la sànni xeer quoi <laughs> mais yow ñoo far alors naka nga vu cette situation et puis euh, série de convocations et d'arrestations ñu nemmeeku euh, ces jours-ci. waaw mais xam nga c'est une tentative d'intimidation. Mm-hmm. mais cette tentative d'intimidation moom dafay nekk un coup d'épée dans l'eau Mm. Amge Seregal, yale de sou binde nyon khametini ba adoune tou ki sen liberte ken mounou kou dinde kinyon mm-hmm. izon chwazi dete libre kama adoune chwa la defa am nyo chwazi tenkou am nyo chwa am jel chwa ou am liberte mm-hmm. se sen liberte doun kou negosye doun kou vendanje ken mounou dele liberte kinyon mm-hmm. amge Abdoulaye Wad sounyou mam lawan ala limit wala mouy sounyou papa Macky Sall lu mu gàtt gàtt gàtt suñu mag la moo ñu mag. Hmm. bu fekkee ñooñu la ñu mënul maanaam may fu ñu laalee démocratie ñu raak ko ak ñoom ba Ablaye Wade jël ñu dugal ñu ci kaso Macky Sall jël ñu dugal ñu ci kaso waxumala ak suñu moroom bu ñu maaseel. Hmm. Ousmane Sonko il faut mu xam ni non seulement bu nekkee ni ay nawle lañu bu génnee loolu ay moroom lañu dañu maase. mu am lu mu yor Sénégal comme responsabilité ñu am ñun nu ñuy gisee Sénégal di ci wax liñ ci xalaat cette liberté là yàlla sàkkagul koo xamante ni mën nañoo tere di wax suñu xalaat ci Sénégal ñoom li ñuy xeexal du du yirim du du bougan dafa weesu lolu li ñu bëgg moy c'est une tentative d'intimider les gens tiital nit ñi pour yaakaar ni dinañ noppi lolu nak nax sa bop la parce que bo jéemee tej ben bougan tu vas créer mille bougan, nga tej ben yirim tu vas créer mille yirim nga tej suba ben Badara Gadiaga tu vas créer mille Badara Gadiaga hmm. dëkk bi la kenn amul maqama di acte en tant que kilifa nga ñun ko commenter wax ci suñu xalaat yalla sax daf ñoo dimbali faire. di ko daloon daluñu hmm. ndax egg fi nga Ousmane Sonko fa justice man borom il n'y a pas d'alternative à la justice bu mu nee moom du wuy ji justice maa ni kon jar na ñu jël palais euh, bi nga xamante ni mooy palais de justice dëpp ko bu Ousmane Sonko wuy jiwul mhm. bi ñuy jël gendarme yi tey ñuy woon nit ñi ak policiers yi bi leen kenn ñemewul défendre man maa bokkoon ci ñuy jóg ak ñeneen di wane ni cette république là kenn du ko mettre à terre. Mhm. Mani ont dialogué avant les morts ou dialogué après les morts il yag y aura dialogue. ils ont dialogué ils ont dit ils sont aujourd'hui au pouvoir sénégalais yi donnent xaar pour régler ces problèmes hmm. problème bi xam nga fan la ne. Hmm. bala ñu naan chiffre tel ak chiffre tel sénégalais yi ñoo constaté seeni biir ak seeni poste que Sénégal doxul wax naa Mohamed <laughs> ñuy dund jafe-jafe yu metti nee naa la FMI yëgaluñu ko ñun ñoo ko yëg ci suñuy cin yëg ko ci soxna si bu demee marché yëg ko ci woyofal bi bu yuuxu yëg ko ci leneen ak leneen ñu xam ni dëkk bi metti na xaaruñu FMI pour xam loolu. donc ñun chiffres yi dañ koy dundul d'abord balaa moo doon ay ay croissance ak ay ay ay ay euh, dette ak ay encours de la dette ak ces choses techniques yi nga xam ni askan bi sax du comprendre li askan bi comprendre mooy hmm. dañu leen fal pour ñu régler problème mu askan bi ni ñu woon livre bu tudd solution la Ousmane Sonko bindoon xaatim ko jàkkaarlook Sénégalais yi tey mënul wax ba ku tudd Bougane Gueye Dany ku tudd Cheikh Yérim Seck ku tudd Badara Gadiaga ku tudd neneen ak neneen mënul wax ba ñooñu du ñu taxaw di leen wax seen xalaat. Mhm. kaso nag li ñu xamul mooy kaso ñaari façon kaso moo am kaso nit ki tooñ ba dem kaso kooku kasoom day metti nit ki nga xamanteni ni dafa libre avec sa conscience boo ko tëjee tëjoo ko kaso. Hmm. kooku yow sa bop nga tej parce que yow yaay am problème de conscience. et ku di woon Sénégalais 6 six mois après cette élection là Sénégal dina nekk ci dinañ nekk ci bii fi jaxa bi ñu nekkaat di def ay direct di wax ay libération ay journalistes di wax ay libération politique un homme politique bu mel ne Bougane wala patron de presse ku ñu waxoon danañ nekk ci live yu melni 6 six mois après kenn du ko Mhm. man dans ce pays dama ni ñun comme ku toñ yalla ñun éternel recommencement lañ nekk. <laughs> le Sénégal. <laughs> bu fekkee yàgg nga suivre histoire politique du Sénégal. da nga naan dafa mel Sénégal lu ñuy rimer rek cassette bo xamante day daw ba jeex rek ñu reprendre ko parce que des fois tu as l'impression que c'est les mêmes. pratiques yi nga xeexoon il y a 20 ans il y a 10 ans c'est les mêmes pratiques mooy ñëwaat ku dugg ci palais bi mba nga dugg primature mu mel da nga dof et <laughs> mais mais ces arrestations en en plus finir là. da ngay toog ñu le la mais ba jaxatee jàpp nañ ko nga toog ñu ni imam imaam. waa da u japp nañ ko te tok suba ñu ni la bugaan nañ ko nga ni ñu ni yirim japp nañ ko ni ñu ni nañ ko nga ni ñu ni commissaire Kayita japp nañ ko mais fan dëkk nga mës gis ku ni Sonko ak Diomaye dañ doon xex ñu wax ko mu ni aw ma ci preuve dañ mako wax ñu japp ko yóbbu ko instruction hmm. mais tu t'imagines nga yaakaar tu peux leurrer les Sénégalais les duper de par ces arrestations ñaar Mounoul tax peur am man de je fais partie tey des chroniqueurs peut-être nga xamante nit ñi dinañ ñu xel. Mhm. mais je te dis man par exemple. oui, Mohamed man yàlla bindul sakul ki may teree wax sama xalaat. <laughs> ah kooku amul existé gul. et je sais Bougan sama mbokkum taalibe la boo xam ne sëñ Moussa Nawel daf maa teg. Mhm. ni mo badara dama bëgg bu bugaan ngeen xam li ngeen bokk loolu minam la bokku la daaru xudóos gi ñu bokk muy serigne mu serigne sëñ soxna lo bokk serigne abdou fata dëgg la ku melni yirim suma grand frère la bo xam daf may wo ñuy échanger di déggante lu bari mhm. tay dafa am ño xam ni gis nga bo leen jappé lima ben xarit wax démb mu ni ma am na ño xam bo leen jàppee bu tang lay nekk ci yow ah. boo ko logee mu lakk sa gémmiñ boo ko wanaasoo mu lakk sa put boo ko yàbbee yàb bi dafa ñaaw <laughs> dégg bu baax <laughs> bu baax ak <laughs> waa dafa am ñoo xamante ni maanaam kenn warul xalaat ci àdduna hmm. naan da ngay xëy nii rek defuñu la dara nga ni da dal seen kaw c'est ça dafa mag Ousmane Sonko hmm. cette démocratie la Ousmane Sonko munu ci dara démocratie la biñ koy défendre mom mi mi ngi toog ci ay domam tok impôt domaine yor bureau climatisé ñu génn di xeex dem kaso mhm. mu mu mag ma man par exemple té il na maa ko njëkk engagé wu pour le Sénégal bien sûr oh, wow bien sûr lolu dal la bëgg léral merci beaucoup cette intimidation-là ne passera pas. Merci beaucoup. Et yéen ñii ay agent ou Bougane Gueye Dany yéen ñii liggéey ak mom ñun ñii ay frère yeen ñep ma ngi len di encourager. di leen Sénégal mom kenn mënul Sénégal il a yow mal abat jërëjëf merci beaucoup ñoo bokk liggéey bi badar ñu li jaajëfal ci sa intervention alors Riyal daañu ñëw ci yow Babacar cette situation fi la ñu toll est-ce que aujourd'hui les priorités ñu ailleurs maa ngi koy rappeler léegi Riyal Omar Fay? ci contexte bu ñu nekk nag ay la yowén ndax fépp ay métti euh, wax nañ ko